Euh, ok tey gis nañ game bi euh, Sénégal Gambia ñoo doon play mu nekk game boo xam ne comme mun naa wax ne euh, Gambia seen bakkan lañ doon play because of si si affaire yi ah supporter yeeg yeneen yi yëpp so tey game bi yow soo ñu koo riidal loo ñëw mën a wax waaw alhamdulilah lan na a wax rek because dëgg la luñ expecté ko dañ foogoon ne comme féetali man duma fende den foogna sitom dafa ñëw sit baak ala euh, Sénégal ñëw to pet bi waɗon fortunately bu ñëwee bu mu tegee bu stade lem di génnee ñëpp a wax ne waaw this is what we expected from luusee sax comme we lose with dignity comme dëgg la luus neen waaye xam na ne dëgg am comme we didn't have to blame the coach or anybody else understand we have to blame ourselves ba pare yàlla look was not our moo tax nga ñu luus understand plus tam di àll red card bu mu ñu suma problème ah, suma gis naa problème jëm comme Jefferson Sillera tam moo nekk ne chaque game su amee suñu expérience yi nga ne pass na through this pleneen si yi nii xam nañ expérience game ten fan la leen toll dëkk bi fan la toll bi ne war nañ ñëw anasaan na motivate ñu leen hey come on lii ngeen expect in ah, si field bi right now ne la provoque boo sa bàyyi red card bi provoque ko fa am af da ball la mu déggaat ko so dafa mel ne am na lu mu ko wax moto ko ñu déggaat ko mu def ko mo am am straight red alasan ko fa joxoon wiw suñu sax tor yaa leen fiyaa mu gis na straight red la so daas mi ne ko provoque alasan am na lu ko wax ko mu mer alasan mu dem mu diyaag alasan loolu mo ñu ko red card te haram bi war a red card xam na ne mom diga diga ting si doon demen nu demee nii diga diga boy play nen well to let's take from them understand lu you lose you lose things understand you have he boy god diga diga play nen the but look was not our side today mu tagay lose waaye wala dem toog sit down relax tanga di defend understand full go isi ay ten defend ak yooyu noonu pour right now moom nu def moom dëgg dëgg amuñ kenn du ko mën a wax understand léegi ñu come to the next game ñu mu def some little bit of adjustment comme que am na red du ñëwaat so at least ñu isi Hamza sax mu ñëw mu dimbale ñu understand la ñu def apart from loolu moom comme suñu maintain the same eleven sax is ok because si man moom dëgg dëgg booy play nañ well very ok euh, beneen bi gis nañ Ablaye Diallo euh, Ah, yow euh, lii lan la mën a yokk Gambian ci mbir non dëgg dëgg comme Abdoulaye Diallo da nga ko fa soxla understand a lot fa overall soxla sax so su ñëwee daf ñëw wala dimbale sax because soo bàyyee moo score the first goal for Gambia in AFCON understand moo ko njëkk a score understand cest dafa dafa dafa dafa play play comme dafa play overall play sax comme to wen comme to games yëpp daf dee overall contribute a lot sometimes we also want to see yourself I'm changing to them so obviously you need we need you need miss him today sir because I'm not in a set position I'm on nanga hadn't be worth mom for so we end up being in the loser side but we still now taking good faith ñu leen duragum understand that so that's mean that come Senegal ñama Cameroon ñoy tete next am Guinea So anything can happen. So Senegal happen to win, ñu dañu am win Guinea, win Cameroon, we are through. So tam nga rek Olof Ndiaye mu ne njaka fecc tax do mom geew. So njaka nañu lose nga buñ mujjé lose nen end up with winning. Understand la. Waaw. Okay, ban yow lan nga mëna wax fans Gambia because fu nekk ni ñu bari am nañ shock tan because of am nañ ne Senegal la wax yi bari na torop torop. waaw especially man sax man nekk moom ñu ko ma def kool sa boy gars yi Sénégal ñëw balaa sa waaye ko ma nga rek football la woon rek diggante bi fa xat trop kama nga alhamdulillah dem na peacefully ala sanga dara xewu dara sana ñëpp a ngi tamba kaam ah fant lu mu am wax le moo ñu maintain peace discipline bi am na nga rek ñaani ñu yokk ñaan ñoo xam ne daal dina ñëw incha allah si kàttan yàlla ana sànna rombo tamit wala dee comme ñun comme we are just starting ñoo de only team bu comme bu bu ko qualify back to back afcon te ñoo de only team in africa bu nga xam ne like we we develop like 95 players of our players come through Gambia comme compare to Sénégal other countries ñoom seen président la juddoo Europe ñu si leen dinañ ñëwaat ñu ne sa paa ñun non ñun mun ngaa compter ñu xam ne ñu juddoo Europe. ninety five percent of our players yëpp they are home grown players they started from Gambia fii from poor pitches fi leen starté ba nekk ba egg ba egg fu ñu egga so xam nga na fan si gëm loolu ñu xam nga ñu gëm ne dafaa ñëw incha allah si kàttanu yàlla next match dañoo win win Cameroon tamit am six points jàll